barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mu jël faydu tiijaan jox ñu moom Cheikh Omar moomu moo tasaare wirdu tiijaan fii ci réew mi ndax ñi nga xam ne ci ñoom la wirdu wi jóge ñu jàppee ci Cheikh Omar lañ ko jëlee Seydil Hadj Malick jëlee ci Mayoro mu jële ci Cheikh Omar Alaji Abdoulaye jëlee ci Amadou Mohamad ibn Ibrahima al Fouta Jali jëlee ci Aboubacar mu jëlee ci Cheikh Omar ñooñu doomi Sénégal yooyu soppi nañ kan xar kanamu taarixu Sénégal ci lislaam ak ci yoonu Tijaan ma ne ba Cheikh Tidiane dundee ba am juróom benn fukki at ak ñett la Cheikh Omar juddu Cheikh Tidiane génn àddina ci atam ñett fukki ci xarnu ñetteel bi bañ demee ba ci Cheikh Omadou Hafiz des di xalifaam Cheikh Omadou Hafiz génn àddina ci atam junne ak ñaar téeméer ak ñeent fukki at ak juróom-ñaar baddi di ngi génn àddina ci xatam junne ak ñaar téeméer ak juróom benn fukki at ak ñenant bés ba baddi génnee àddina ca la alaaji Abdoulaye juddu bañ ca tegee fukki ca la alaaji Malick juddu ñooñu lu tax ma di leen tudd dama ne soppi nañ taarixi Sénégal ci solo lislaam ak ci solo tariqa tijaaniya ku ne xam na ne ñoom ñaar ñooñu nga xam ne ñii mag ci ñun jot nañ seen dund xam ne tariqa tijaan tasaaroo ci Sénégal ci seen liggéey la bàyyi ko ji Abdoulaye nag yàlla may na ko mu jóge fi dem Fass kon demee jàpp ci Seydil Bachir maami sëriñ sëriñ yi toog jàpp ci Seydi Ahmadul Abdoulaye jàpp ci Seydi Tayib Safiyaani ak jàpp ci Seydi Ahmad Sukayri Abdul Karim Binis ndax booba moom ijaasa gi am du litlaax guñ tënk la ba mu defee faar la soog a am ijaasa litlaax ci yoonu tijaan buñ dellisee fii lijaasa ci yoonu tijaan ñaari façon la mën nañ laa may lijaasa ngay may wirdo rek te mën laa def kenn muqaddam mën nañ laa may ngay may wirdo di maye muqaddam muqaddam bi ngay maye bi ngay may du samp muqaddam mën nañ laa may ngay may wirdo di maye muqaddam waaye ci àpp nangami muqaddam kuñ may nag nga mën a maye wirdo wi mën a sampi ay mukaddam ci lu amut ab sa mukaddam yi ngay sampit dañoo sampi ay mukaddam ci lu amut ab loolu la ñuy tudde litlaax ci suñu yoon loolu alaaj Abdoulaye ci yoonu faasam bi la ko soga amee ba mu bàyyi ko jóge faas ñibb si Tiwaawan la jaar maa ngi benn benn la ndax lislaam rek a doon seen soxla ba mu jaaree Tiwaawan yàgg na fa biit alaaji Malick téye ko ne bu mu dem xamutoon sax lu tax mu téye ko te ba fa jógee lañ soog a xam lu taxoon mu téye ko fa ko téye woon ne ko dañuy gàmmu gaa ngi wàcc ñëw na nga ñëw nga gàmmoo ci man fekk na booba Alaaji Abdoulaye am na lu doxoon digganteem ak français yi ba mu génn réew mi toxu ci réewu Gambie mooy lan mooy français yi dañ ko ne woon na joxe Alaaji Momar doomam ak Alaaji Babacar ñu jàng école mu bañ ne moom soxlawut ci nguuru français dara soxlawut doomam nekk fonctionnaire dafa bëgg doomam di jàng di liggéey di top yàlla kon nag soxla bu muy jàng tubaab bàyyi ko dañ ko bàyyi mu jàngale ay doomam li nga xam ne moom la xam ñu dajoo jàng moom mu génn gàddaay dem angale bi nga xam ne dellu si na jóge faas ba tiwaawoon mag ci seen mbaax rawatina ñeeñ yàlla Alaaji Maalik dafa xoo booba avocat bu ñuy wax Carpo Carpo moo jëkkoon a nekk député fii ci Sénégal moom la Blaise remplacé ne ko bindal ma leetar gouverneur juróom fukki dërëm la ko fay ca tàng booba sama baay yegut ko de alaaji Maalik ko fay ci poosam ne ko bindal ma borom ndar ne ko alaaji Abdoulaye ngi te mu dem nañ ko téye mu ci Sénégal ni mu gën a ji diine ji la gën a noonu la gën a la alaaji Maalik bind borom ndar borom ndar dal di jox ndigal commandant cercle bi ci Kaolack ne ko bu fa alaaji Abdoulaye jaaree na ko téye ak lu la a jaral rek bu mu dem <coughs> bi nga xamee ne tàggu na alaaji Maalik mu gunge ko ba ci gosaas gi ne ko dama lay ñaan soo jaaree Kaolack na nga nuyu commandant cercle ba commandant cercle kenn bu jaar ci réew di ko teg bàyyi ne man xaw ma sax luy commandant cercle waaye loolu la ma wax mu ne bu ñëw laaj te ñu ne ko commandant cercle bi fi nekk mooy Borokaar boobu moo toog ci place Mbaye Diouf mii fi nekk tey te sama bàyyi demee nuyu ko mu ne ko yow day Elimane Ndiaye wax na ci yow te ko tubaab commandant sangam wax na ceew lu baax commandant sangam wax na ci yow lu baax commandant yëpp def nañ ci yow yu baax waaye li man ma Ndiaye wax na ne da nga bañ français mu ne ko loolu amul man diggaale gale ma français yi dara man liggéey ak jàng ak topp yàlla rek sama soxla jaadi na loolu tubaab yi yàqaluñu ma ko man di tubaab yi doxal ma it sama soxla nekk ci du ma leen ko yàqal lu yàgg-yàgg du ma bëjoo ak ñoom li nag mooy eh, noonu nañ mën a sama doom jàng tubaab te man booba sama doom mu jàngali may jàng moom gën a ñu amale woon ba ma fi mu ne ko loolu nga wax nañ ko bind ma def ko fii ñu bind li nga xam ne lañ la sosal ba ku ñëw bu gisee li nga xam ne mooy liñ la gis li nga xam ne mooy gi nga toog fii ci kaw rax nag ma may la kër ci kaw rax mu ne ko man mënumaa dëkk ci kaw bay rek bay sama mu ne ko dëkkal ci kaw borom xam-xam nga borom xam-xam yomb xamal lamp ko gën sori ko fas yiñ la fasal ba nga génn réew mi ci lu du dara soo nekkoon ci kaw lax du mën a am toogal fii soo fi toogee tey njaboot di liggéey ci taax yi su naweteem may naa la nga dem ci kaw gi bay sa tool ngay ngeen di am xaalis noor ak nawet ay son lay ne ne nangu na mu ne ko wëral foo bëgg ci kaw rek may may naa la ko mu wër da ji fii booba kër yi dëkk bi mu nga toll ci tali ba lay jëm kat gouverneur ko dalee fii ba foofu kat amul sama bay ñëw sàcc fii ca at mooma la rëdd saawe bi fekk ba mu demee faas yóbbu na buum natt saawe si wax ba ca faas nam day bi ñëwee natt lu day noonu mën na tabax lépp waaye mu firiñ toon loola tabax li mu ci mën a tabax mooy tabax boobu nga xam ne moo am juróom benn fukki at léegi moom lañ doon eefal ba yàlla sottal ko ci suñ jamono ñu nii yàlla def na ñoom ñi nga xam ne ñoo doon jeexital yoonu tijaan ba mu agsi fii muy ki ko dikkee di Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ak El Hadj Umarul Fouti ak Cheikh Ahmadul Hafiz ak El Hadj ak sama baay ñooñu ñëpp seeni doomam yi toog tey ci jotaay bi alhamdulilah ñu xeetalaat zaawiya bi mu sotti ci nii nga xam ne na lañ ko mébété woon loolu moo tax ma ne ñu ñëpp war nañoo sant yàlla waxtaan wi nag man duma ci gudd maa ngi am gan yoo xam ne. dana jafe ci taarix ñu daje ñoom ñëpp ñu ngi fi ci nekk gis ko njëriñ la dégg ci moom njariñ la dama leen bàyyi ngeen dégg ci ñoom muy Sëriñ Sëriñ Muhammadul Habib ki nga mooy sëtu Cheikh Tidiane ki njiitu yoon wi mi ngi fi Sëriñ Muntaxa Taal ci sëtu mi ngi fi Alaaji Abdul Aziz kii doomu Alaaji Malik di xalifa mi ngi nii toog bëgg naa Sëriñ waxtaanal leen su àggalee xalifa Alaaji Abdul Aziz waxtaanal leen dangeen ci am njëriñ su loolu sottee nag ñu leen yàlla lu jëkk loolu maa ngi gërëm ñëpp di gërëm mboolem mi ñu fi teew rawatina ñi nga xam ne fi teew ci wàllu nguur gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barhaamu baaun waraun alifun haa